sama gars yi li rafet na de ci ni ma leen nuyoo noonu gis nga ndeysaan cuisine mel noonu euh, ak ci Alphie Cuisine bi ñu mijoté ay beñe yu yomb yoo xamante ne ci décor bu rafet bi laa leen ko bëgg présenté sama gars yi nee naa la kontaan naa ci yéen euh, du ma euh, yi di leen jaajëfal comme dama bëgg lu gàtt bëgg lu rapide bëgg lu vite fait euh, donc juste rek pour faire un coucou ñu dugg nànk ci Alphie Cuisine euh, daal di mijoter ay beignet yu amul fenn jaajëfal naa leen sama gars yi nee naa la Alphie Cuisine lay doon ana woon les incontournables de Alphie Cuisine jaajëfal naa la waa ay ci sama gars yi ñu dem ci beignet yi rapidement nekk ay beignet yu simple sax yoo xamante ne pour réaliser ko euh, ingrédients yi bëriwul 100 grammes sucre 300 grammes farine benn cuillère à soupe essence vanille moitié sachet levure 60 grammes beurre fondu euh, tuuti raisin sec euh, moom la ñuy soxla pour mën a réaliser ay beignet yu neex noix de muscade man taamu naa ko trop ci beignet ñaari nen pour euh, assaisonnement bi nag ça veut dire pour parfumer beignet bi ku nekk ak sa choix xorom duñ ko fàtte moitié Euh, kudd bu ndaw mooy cuillère à café bi donc li ñuy njëkk def mooy dañuy jàll ci élément sec yi tame farine bi génne grumeaux yi def ci suukar bi levure bi ak xorom bi donc élément sec yi li ñuy njëkk jaxase nga xamante ne buñ koy yëngal Euh, levure bi du féete côté wala xorom bi demee côté wala suukar bi mélangé wul fàtte na naa leen wax euh, crème fraîche crème liquide lu toll ci 10 centilitre moom moom laa yëkkati noonu léegi bu ñu tamiser farine bi ba pare daal di teg jël xorom bi def ci moitié cuillère à café maa ngi ci 300 grammes farine ak 100 euh, grammes sucre pour mu bañ a saf suukar trop donc mi ngook léeg-léeg ingrédients yi da nga koy wax sax mais après dañ la koy laajaat ci biir euh, recette bi mais du am benn benn euh, problème parce que toujours ci bu ngeen xoolee ci barre d'info bi da ngeen di am foofu ingrédients yi donc moitié sachet levure pas ñu def ci levure bu bëri pour mën a am ay beignet yu croustillant yoo xamante ni limite dafay xaw a nduroog croquette buñ ko saafee ba pare léegi ñu ñëw ci élément liquide yi toj suñu ñaari nen nag daal di jël essence vanille bi def ci jël beurre fondu bi def ci jël crème liquide bi def ci daal di yëngal moment bi tamit lan la lay permettre pour nga bañ a am blanc blanc wu nen bi wala jaune wu nen bi suñ koy mélanger mu demee côté wala mu bañ a jaxasoo bu baax loolu tamit dafa am solo donc élément liquide yi à part élément euh, sec yi à après ñu jaxasee leen ñoom ñaar toutes les façons mariage la rek ñoom ñaar ñoo ñëw bokk bool léegi su ko defee nag nga jël sa fourchette daal di yëngal bati ba yëpp yëngatu nga xam ni noix de muscade bi dafay jaxasoo ak euh, essence euh, vanille bi bu la neexee nga def sa fleur d'oranger bu la neexee nga tànn beneen beneen parfum bi la neex ci beignet nga def ci bu neexee nga def ci zeste d'orange su la neexee nga def ci zeste citron ça dépend mais toujours rek jàppal ni fi Alphie Cuisine toujours dañuy commencer ak euh, recettes yi lu mu gën a simple ko defee nag bu jimmi jamono ñëwee nag ñu daal di yégal level bi waaw yéegal ko nga léeg nga def beñe ba def ci ba def ci ñoom koko rappeek ñoom ñoom seen te beñe tamit am na ay façon beñe yu bari beñe coppati beñe këmmax beñe dugub beñe beñe merveille beñe nu ma ko mën a waxatee sax beñe coppati beñe levure beñe gonflable mooy beñe dërëm yi donc beñe bëri na façon donc bii nga xamante ni moom la ñu tàmmu tey ci dimanche bi mooy bu ñuy njoganikoo bi rek njoganiku pour def njoganal rek wala pour euh, garder ko avant ñuy ñuy tëdd léegi nag bu ko defee nga daal di jël sa ñaari mélange yi boole leen moment bi dafay am solo il faut que nga am benn texture boo xamante ni farine bi élément sec yi dafay incorporé wu ak élément liquide yi jël naa spatule bi njëkk mélange mélangé après ma jël fouet ba nga xamante ne euh, léegi dëgër na léegi nag damay teg ñaar yëpp daal di jël loxo bi nga xamante ne da ngay incorporer ñaari éléments yi donc gis nga njëkk naa def lu toll ci cinq centilitre crème fraîche léegi li desaat ci crème fraîche bi pour nga am texture bi nga bëgg moom laay ñëw dolli su fekkee da ngay def genre mélange yi soxlawul ngay jël liquide bi yëpp def ko ci parce que su xasee ba tooy rek. dootoo ko mën a rectifier da ngay yàq mesure bi moo tax dañuy def tuuti tuuti donc beneen cinq centilitre crème bi moom la ñuy ñëw def nii ci paton bi daal di koy yëngal donc soo gisee benn sens rek laay laay yëngalee donc benn sens rek benn sens rek nga daal di yëngal ba am élément bi maanaam texture bi nga xam ne moom la ñu soxla ba ba mën a coppati daal mooy bañ coppati mi ngoog léegi li ciy des nag du dara lu dul raisin c'est personnel su fekkee soxla bëgguloo raisin soxlu nga ko ciy def mais man j'aime bien di lekk sama ay beignet di daj ci raisin yi noonu laa bëggee raisin ci couscous noonu laa bëggee raisin ci vermicelle fa am ay ñam yoo xamante ni c'est personnel ku nekk da nga koy bëgg léegi nag moment bi nga bàyyi sa pâte reposer le temps nga teg sa dëwlin euh, ranger waat sa sa plan de travail raxas ndab yi takk yeeg yooyu yëpp daal di teg sa dëwlin nag mu sens su ko defee nga commencé coppati bu fekkee beignet yi dijji nga bëgg coppatil def beñuy dijj su fekkee yu ndaw nga bëgg coppatil def yu ndaw moment bi moom kenn du la wax say say mesure beñi yow yaay xool nu mu la neexee rek nga daal di coppati daal di def l'essentiel mooy que dëwlin bi soxlawul muy sens ba ëpp soxlawul tamit ñuy yokk gaz bi parce que beñe bi dafay xonq alors que ci biir du ñor li ngay def mooy boo amee sa température dëwlin idéal bi nga xamante ni beñe yi commencé na di di di di di tëb tëbi noonu ci biir dëwlin bi nga wàññi nag sa gaz daal di jël sa kuddu di yëngal di yëngal ba nga am coloration bi nga bëgg nga xamante ni beñe bi soo xoolee après dafay xar ci digg bi donc loolu moo lay wan ni beñe bi ñor na léegi nag nga daal di seppi teg ko ci sa torchon wala nga teg ko ci sa papier absorbant lépp rek pour bañ a consommer euh, dëwlin bu bëri bi bañ a bàyyi beñe bi mu naan dëwlin bu bëri soo wàññee gaz bi torop beñe bi dafay naan dëwlin soo yokkee gaz bi torop beñe bi dafay xonq te du ñor donc loolu yëpp da ngay yamale rek et puis nga jël sa temps di yëngal ndànk na parce que yëngal boobu bul ko xeeb di la fet ngay yëngal beñe bi dafay tax beñe bi di tourne di ñor ci face bu nekk waaw seetal waa waaw mi ngoog li ma la doon wax beñe bi dafay xar daal di continuer di ñor ci biir beñe dafa am succédé dañ ko sax génneel tube xaw ma ndax déglu ngeen euh, groupe bi fi woyoon beñe beñe <laughs> beñe non Sénégal a neex <laughs> beñe suukar beñe <laughs> yàlla baax na yàlla baax na donc bu ko defee nag ñu daal di seppi beñe yi et daal di koy denc nag su fekkee am na ñoo xamante ne nag beñe yi dañuy xëy di ko ndékkee parce que ça change un peu ci sunu ay façon mu ndékkin ci mburu yeeg pain de mie yi mën nga toog sa benn une semaine boo xamante ne sa beñe kafe ngay def wala sa beñe ak meew ngay def donc bi ngoog sama gars yi njogano lu dimanche tey bu sucré la de muy ay beñe jaajëfal naa leen bu leen fàtte toujours di partager vidéo yi et continuer di abonné wu sama gars yi lu ma leen remercier rek xeeb naa ko abonnement yaa ngi yokk tarkalla gars yee ngi abonné fu nekk fépp foo dem ci dëkku Afrique ci dëkku euh, pays du monde bi rek gars yaa ngi seetaan Alphie Cuisine ma leen di jaajëfal fépp fu sama suiveur nekk jaajëfal naa leen donc seen ay njogonalongo fa njogonalongo façon Alphie Cuisine muy ay beñe yu croustillant yoo xamante ni euh, tey moom lañ leen baaxee man kaasu meew laa koy booleel yaa ngi seen noonu muy guuxaale sama kaasu meew donc jaajëfal naa leen sama gars yi je vous donne rendez-vous très prochainement pour yeneen recette très facile fii ci Alphie Cuisine donc mi ngoog sunu ay beñe ngoog jaajëfal naa sama team Alphie Cuisine ak les incontournables de Alphie Cuisine ñooñu bu ci kanamee dinaa leen wax ñan lañu donc merci beaucoup et la prochaine sama